sallallahu alayhi wa alihi wa ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw yi noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu azza ñu fanaan ci jàmm yeewu ci jàmm borom bi subhaanahu yàlla yendal noonu ci jàmmam nuy ànd ci darsu mukallaf li njëkk a war ci mukallaf te ñuy jël li nga xam ne diine tere na ko mukallaf bi mooy ihaanatul muslim wa sabbihi wa taxwiifihi fi gayri xaqi suñu diine yi di lislaam yàlla yónni ci muhammad sallallahu alayhi wa pour mu ñëw jàngal ñu ko leeral ñu ko dafa tere ab jullit mu doya dil moroomu jullitam dafa tere ab jullit muy saaga mbokkam jullitam dafa tere ab jullit muy tiital mbokkum jullitam mbokk jullit yi diine lislaam tere na ku saaga ab jullit yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax na ci xadis yu wér yu leer nee na saaga ab jullit kàccoor dong moo koy def si baabul muslim fusuuq wa qitaaluhu kufr yeneen bi alayhi salaatu wasalaam nee na saaga jullit kàccoor moo koy def wax ju ñaaw kàccoor moo koy def saay-saay bandi mooy tiim ab jullit di ko doyadil di ko saaga ak di ko tiital mu nekk lu lislaam araamal ijmaul umma dañ ko araamal ñépp mboolem xeet wi yemuñ ci sax araamal ko dañu ne wa faailuhu faasiqun kama axbara bihi nabi sallallahu alayhi wa ñu ne kuy def loolu kàccoor nga saay-saay nga bandi nga yow mu tiim ab julit di ko doyadil di ko saaga di ko xas ak di ko terroriser di ko tiital yonent bi sallallahu alayhi wa nee na kooku kàccoor mooy def loolu xeex ak ak jullit nag ci lu nekkul dëgg kooku bandi dëgg dëgg dëgg moo koy def nee na loolu sax day dem yóbbu jullit bi ba mu génne ko ci lislaam génne ko ci lislaam comme ni ko hadis bi waxee looloo tax jullit ñi war a xoolaat seeni taxawaay war xoolaat seeni melokaan war jàngaat diine jii di lislaam xool ana lan lañ ci war a def lan lañ war a wax ak lan lañ war a def lan lañ war a bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiisu abdullah ibnu mas'ud mu ne sibaabul muslim fusuuq wa qitaaluhu kufr xeex ak jullit kàccoor moo koy def mu ne xee saaga jullit kàccoor moo koy def mu ne ku xeex ak moom nag bànd yéeféer nga kàccoor mooy saaga jullit yéeféer mooy xeex ak jullit hadis bi mbokk yi suñ ko doon jàngat ba ca jiitu ci jàngat yi mooy lislaam araamal na ñaawal na taxawaay bii te mooy saaga waate lan mooy saaga mooy nga wax lu jaaduwut ci derub jullit wala jëm ci jullit ci loo xam ne kàddu gu ñaaw la ku ko dégg na cam moo xam ci kanamam nga ko wax moo xam ci ginnaawam nga ko wax lan mooy kàccoore mooy génn ci yoon wi nga xam ne moom nga waroon a jaar da waroon a topp yàlla nga génn ci kàccoor nga lan mooy kéeféer mooy xeex ak ab jullit yëkkatil ko ngànnaay ah tëkku ko tiital ko xoqatal ko loolu moom mooy mbir moomu hadis bi tegtale tegtal bu réy bu màgg jàngale jullit dafa war a yar làmmiñam ba ay saaga du ci génn ay xaste du ci génn wax ju ñaaw du ci génn wax ju safaan du ci génn jullit dafa war a yar làmmiñam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ki gën a yées ci jullit ñi mooy ki saaga ndeyam wala mu saaga baayam saxaaba yi ne ko yaa rasulallah ndax nit dina jàkkaarloo ak ndeyam ak baayam di saaga mu ne waaw ñu ne ko loolu nu muy nekke mu ne boo saagaa nit mu fayu yow yaa saagalu sa ndey ak sa baay kon doomu ndey yi jot na tey ñu xool suñuy comportement suñuy melokaan jot nañu xoolaat suñuy jëf ak suñuy wax lislaam dumb bu kese lislaam aw dundin la boo xamante ne nit ki da koy dund jikko jeeg melokaan beeg comportement bi lépp doog a ñëw waaye ci ñun tey li ëpp ci ñun turu lislaam kese lañ am waaw wala turu boo amul turu lislaam bi nga yor lenn ci melokaanu lislaam am naa sikkim wal naa wala sol naa yére sàngam wala am naa muuru naa wala kaalawu naa wala maa ngi socc yooyu ci ay melokaanu lislaam la ndax jullit moo koy def waaye ndax tekki na ne tekki nga ne baax nga soo defee loolu tekki nga ne jub nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsaamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ki yàlla yónni woon ci ñun nee na yàlla du xool seen melokaan yi ak seen jëmm yi yàlla du xool melokaan yi ak jëmm yi yàlla xol bi lay xool ak jëf yi kon mbokk yi foog ñu raxas xol yi ndax lii gémmiñ ñi di génn ci xol yi lay jóge ki tiim ab jullit di ko doyadil wala di ko saaga wala di ko xas wala di ko terroriser kooku ci xolam la ko jëlee moo tax foog ñu defar xol yi suñ defaree xol yi ba pare nag làmmiñ yi doog a baax parce que lii génn ci làmmiñ bi ci xol bi la koy tibbee doomu ndey yi mbokki jullit yi nañu xolaat suñu bopp xolaat suñuy melokaan xolaat suñuy jëf yaraat suñuy jikko di nga tiim ko di nga gis ku tiim soxnaam di ko saaga tiim ay doomam di leen saaga tiim ndeyam di ko saaga tiim baayam di ko saaga nga gis ku tiim baayam di ko saaga nga gis ku tiim ndeyam ji ko jur di ko saaga di ko daggal ay saaga ndey nga gis ku jur doom tiim ko di ko daggal ay saaga ndey nga gis ku tiim doomam di ko saaga te jabaram a ngi ci biir néeg bi yow sa nangamu ndey te yaayam a ngi lay dégg koo saaga bu yaayam mel ne yow génn ne la yow tamit sa nangam kurpañ yi jóg seytaane dugg nga gaañ ko wala mu gaañ la xale yi dugg ci ñu ne xale yaa ngay dóor seen baay kër ga tas lan moo tax xale yi dóor seen yaay parce que seen baay moo saaga seen seen yaay seen yaay fayu loolu chaque jour nga koy dégg tey ci senegaal lu ko waral mooy làmmiñ yu ñaaw làmmiñ yu bon looloo tax li war mu kàllaf mooy mu wattu làmmiñ xifzu lisaanihi wattu làmmiñam mbokk yi làmmiñ balu balu fetal la làmmiñ kënu la kënu su nee bëm bomb bu tàkk la su fekkee du lu baax rekk taal na am réew gis ngeen tey ci àddina bi nit ñaa ngi xeex ak France lu ko waral parce que seen président moo taxaw wax ci yonent bi wax ju ñaaw loolu lan la ko jëfe làmmiñam làmmiñ day indi day taal àddina làmmiñ day yàq looloo tax ñu war a yar làmmiñ yi nit ki bu buggee baax na yar làmmiñam nit ki bu buggee defaru na defar làmmiñam wallaahi bu làmmiñ yi defaroo sunu dund defaru wallahi bu làmmiñ yi baaxee sunu kër yi baax sunu jikko yi baax suñu melokaan baax suñu yar baax lépp baax nañ defar làmmiñ rek waa ji ba mu bëggee yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu bëggee waa ji bàyyi naan sàngara da ko ne bàyyil fen waa ji rus naa génn dem naa ni su ko yonent bi ne foo demoon mu ne ko damaa naa ni woon gàcce la te su ko nee damaa doxi woon beneen soxla te da doon naa ni kon day fen foofu la waa ji jaar bàyyi fen bàyyi naan gis nga kon doomu ndey yi mbokki jullit yi suñu darsu tey mooy araam na cib jullit mu doyadil mbokk jullitam wala mu koy saaga walla mu koy tiital lu àndul ak benn àqi sharia lu àndul ak benn àqi lislaam ñu ngi jégglu kàddu yi in aratu illa islaaha mastataatu ma tawfiqi billah illa billah bëgguñu lu dul yéwénal ak baaxal waaye mbaaxal ak yéwénal ci loxo yàlla la nekk lan lañ ko yàlla defal ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa